naga suñu borom na nga dem ci waab li kulli man taxallaxa biya ñaari lu paas bi nga weesu jël ñaari rek ñu siyaar mboolem kilifa yi fi teew yëpp siyaar bu gën a rëy te gën a tedd ci barkeb weer wu tedd bii nu ne di saxru ramadaan mubaarak waxtoom yu rëy yu tedd yi ñu ne ak ci barke téere bi sëñ Mudu maa ngi lay siyaare bu baax ak kilifa yi fi teew yëpp nag mu mel ni ñu ngi dellu siwaat ci jataay bii di jataayu fulk di ci fàttali tuuti rek téere bi yitte yi ko sëñ Tuubaa jox mu mel ci moom noo xam ni lu dul téere bi melundu ci moom boo demee ci benn werakaanam muy sëñ musaaka روحنا واحد نفهم سفك خادم المصطفى مدي فقفل كل ما سوم ليتين بقرآن بدون ياري تري يسين تبع دول تي بين فن لو خم نكني القرآن تول باي كوتشين برم تبارك وتعالى دركت ما جار كرسول الله سين تبع ديكو ديكو ويد وحياة كتاب الكريم أن تهبيبي وخليلي وكنت تبيبي lu toll noonu ci moom lu mu ko méngaleel ba bu yorul bi yorbee téere boobu lu toll ni moom ci njariñ amut téere ngi boo xam ne wax nañ ko ba tàyyi fii xaadimal Mustafaa dafa daan wax ni kër gum fanaan ku ko faatoo doo dem sawara xaadimal Mustafaa daana wax ni téere bii kër gum fanaan borom kër ga soo waatee ni moog rasulullaay bokk fanaan ci néeg nee na du kafaara moog yonent bi boo fanaan ak téere bi jàppale yaag rasulullaay bokk fanaan ci barab téere bi di ko mashum borom tubaa daana fab taalibe yor ko diir def ci moom yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ni defar ga day xaw a yeex day fab ndonga la yóbbu ko ci néeg bi téere bi ne ni ko toog fi ñaan sa aju bu duggee ñaan bu génnee sëñ Tuubaa man ci mom dara téere ngi ni bo xamni dégg nañ ci doomi khadim rasul sa abdoulaye ahad ba ci Cheikh Saliou Mbacke mii génn barki démb day wax ni dëkk buñ ko jàngee mbaa yu buñ ko jàngee man na wat ni moom réew ma réew mucc nañ ci bala du ko wacc mom fulkul mas ko téere gi boo xam am aajo te téere bi nekk sa biir kër nga wañu ko di wuti ñaan jaru ko demal nga ubbi ko ba jàkkaarloog moom rek bu la neexee bul jàng ñaanal ci barke ful bas bas ci barke ful boo génnee yàlla faj sa aajo téere ngi boo xam ne nii fonk googu sëñ bi fonk daa tax lépp ci waa këram weeru koor lañ koy ubbi mbooloo wër ko ngir lim man ci jaam man ko ci aajo man ko ci réew man ko ci soxla lu moom du koo mënut kooku mooy fulkul maso ngeen fonke ko ni ba tax ngeen toge ni de ko jànge ni bo demé ci bopp ba mi nga sante yalla moom borom tuwa di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam defagul njaboot gi loo xam ni kurut moom mënu ko ndax moom bu ñane yalla bay ko fofu la bàyyi commencé waye bi seigne mourou tej yermane ko tedd gi khadim rasulillahi yaakaari jaam yi tey ëllëg ki yàlla dénk léppam mu wax ni bé wiit wuutu gi ma wuutu rasulullaay ginnaawam yàlla bég na ci yonent bi bég na ci umma bi bég na ci wa bi baqaa'i nabi sarra ma wax ni mu sëñ Mudu Wahab li kulli man taxallaqa biya wa li kulli man taxallaqa biya wahab liman kulli wahab li kulli man ta'ala khabiya num ci rek wahab kulli man ta'ala khabiya seigne ngay suk talal ñari loxom jakkal lok boromam mu ngay def daman kim ci ñal wahab kulli man ta'ala khabiya ko wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadar rasulullah seigne touba neena yalla yeremal mako sa li kulli man taalaxa bi yaa sëriñ Mourou ba tey. waaw li kulli man taalaxa bi yaa. mbaa yëg nga ni yàlla mi moom bi jaamam daa wax ni ko ko jaamu mu teral la ko ko jaamu mu duma la. waaw li kulli man taalaxa bi moo tax suñu borom liggéey kër gu ñuy wax sawara. waxam li kulli man taalaxa bi yaa. bëgg a teral jaamam ku ko jaamu tax mu bind kër gu ñuy wax aljanna. seenu jaamu mën tamat seen diggante ak seen borom borom bi sàkk na 124 000 prophètes pour ñu sawee jaam ñi mënuñu ko 124 000 prophètes dañ doon wut mënuñu ko mu sàkk 313 ci seen biir 313 yi yàlla na ci seen biir 25 ko nekk prophète yi alxuraan tudd am na juróom ñu ci gën a foor ñooñu ñëpp lañ doon baax nañu lool waaye Sëñ Tuubaa nee na am na lu des borom bi sàkk ay wàll yu kenn xamul nu mu toll ku nekk ci ñoom ñëw na fi woote nee na yàlla nee na waaye am na lu des bàyyi sëriñ Sariou Mbacke bàyyi sëriñ Fallou Mbacke bàyyi sëriñ Abdou Mbacke taxaw ci géew mi neen nañ ma sëf nañ ma juur danaa la jaam ba yóbbu jaam yi aljanna borom Tuubaa gont fii ci jeewal jaar ndar jóge fi dem ndakaaru jàll dem ci géej gi dem ci géej gi def fa juróom-ñetti at yu manqué fukki fan ak juróom dellu fi fii ci Sénégal borom bi ni ko jox na la aljanna fayal ma sawara waxal loo bëgg ba def ko borom Tuubaa tàllal ñaari loxoom yi jàkkaarloo ak boromam ni ko maa ngi lay ñaan képp ku jébbulu bul seetati jëfam baalal tàbbalal aljanna naam pexe goo xam ni day sax dàq ginnaaw bi bàkkaar dutu ko topp xaadim koy ñaan mu tàllal loxo mi yaa rabbi yow sama borom. bu fekkee nag jaam booba daa amoon bàkkaar yoo xam ni mënu koo tuubal bañ baal ko ko. na nga ko baal baal goo xam ne bàkkaar yi ko jiitu woon dootoo ca xool. ñaanal naa la nga jéggal sama ñaari wajur man xaadim rasul. maa ngi lay ñaan nga jéggal mboolem ñi ma topp man bi kaalahu bi fadli yaasini te mooy ñi bàyyi seen kër yi ndey bàyyi kay seen kër yi bàyyi jox seen tubaab seen bopp borom bi ne ko may naa la ko mu jëppeelu nag ci saaba yi adoon rasulullaay kon yàlla sëñ Tuubaa jéggalu na jullit yi yàlla jéggal na leen jéggalu na murid yi yàlla jéggal na leen mu nga ca saaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla maa ngi lay ñaan Aboubacar Sadiq Omar Ousmane Aliou ak mboolem yi toppoon Rasulullah baal ñëpp ku di julit na ko ku di kuy aj gëm yàlla na ko baal moo xam góor la moo xam jigéen la nag da nga may leen xam ni daañ la sant sant koo xam day sax ko tuub dugg ci lislaam tey góor baal ko waaye ku jébbalu bu dee jigéen jéggal ko bul yëpp ci jéggal leen may leen ak sa ngërëm loo xam ni dangay ànd ak yërmande ma ni kuy def lu rafet baal ko bu dee jigéen baalal bu dee góor baalal leen nag ci sa xiiwal gi nga xamante ne koo ko jox duutu am leneen lu mu soxla ndax day doy sëkk واغفر اوزن المسير عسنا سنت واغي نيان في mil prophètes moom laa wax léegi moom la yàlla sàkk yónni leen ci jaam ñi ci biir seen ñooñu ma sàkk ci ñetti téeméer fukk ñett yoo xam ne ñoo gën a foor ndax borom bi bëggul kenn ko dem sawara ñooñu ñëpp def nañ lañ man téewul penc mi lëj gaa yi def leen neex sawaray bàkku di xaar ñu mu làkk suñu borom jukkiwaat ci seen biir ñaar fukk juróom dooleel leen li leen ba tey bëgguma kenn dem sawara ñooñu def nañ lañ lañ man lépp waaye ba téex ba tey ji téewul mbirum yàllaa ngi wàcce ci jaam ñi borom bi jëlaat juróom moom lay wax ulul bi tëbbu leen ci xeet bi sànni leen ci àdduna bi nga ñu sowee jaam yi ba tey monde bi mel nii mu mel wàllu yi ñëw nañu ku ne jéem nga li nga man tey la wàllu gën a aay tey la bon gi ëpp tey la fo bi gën a bari te yërmande yàlla yaatu wàllu yëpp dam ba dox sëñ Tuubaa yi borom bi dem ba yàgg mu ne naa sàkk ci sama leer tëgg ci rasulullaay sàkk ci leeru rasulullaay sàkk ci ahmadul xadim yónni ko jamono moo déggoog waa jamono te moo saf xorom te moo man ci gaa yi dara ahmadu ni yàlla maa ngi lay ñaan mboolem ku nar a dem sawara dajeek man la mu def ba mu nar ko yóbbu sawara baal ma jëfal la jëf ju fay loola te nga may ma aljanaam yàlla dangaa sàkk ay jaam ku mu sàkk bindal na la kërug àjjana bindal la kërug sawara yéefar yi nag gàntul yàlla waroon dem àjjana te dul fa dem seen kër yi sëñ Tuubaa nee dama lay jox loo xam ne da nga ma koy dédommagé ku naroon a dem sawara te yaakaar rasulullah ma yóbbu la aljanna borom may ko ko fooy tàmbulee mu ne ku sukk jébbuloo sëñ Tuubaa nee na warlu naa la ko moo tax murit bu mu sikki sàkk bu mu deng deng gis nga lii sëñ ji bi yoonu kenn nekkul ci sëñ Tuubaa ko wax li kulli man taallaxa biya booy booy lijjanti mën naa nekk mënta nekk sa participation da cay am boo mul action di déet Sëñ Tuubaa nee na laaju wala action joxeel sa bopp rek kaar bi daal gi man ngaa dawal ak am nga permis amoo paas ak buggal rek ma yóbbu la xanaa loolu rek koo gëm kaar bu bàyyi koo ju bàyyi Tuubaa jëm Dakar ba noppi nekk impact boo ko see ko ca biir ba jël baax waa nekk fi naan ndax moom dina sotti du sotti jarat na ko bàyyi la suufur bi sa bopp sëñ Tuubaa nee na may suufur bi li kulli man taxalax bi yaa daana leen defal saxaada dahima yéemu ca mu fàggul ko way juróom yi ko jur yéemu ca mu fàggul ko boole uba usul islaam yéemu ca mu dem ci saabay rasulaay nii ginnaaw ramm naa ñëpp ba mu jeex saw sas teel naa ko bay bay mi jeex na sëñ Tuubaa gàddu ko fam dugg ci biir kër yonante bi ni ko li la dese woon yow jox ma ma ramul la ñooña ah war daan sahabatil kookoy borom Tuubaa mu daam wax ni képp kuy jullit bu jigéen wala ngay jullit bu góor Sëñ Tuubaa nee na boo ma nungulee war na la aljana képp kuy aji gëm ju góor gëm ju jigéen borom Tuubaa na boo ma nungulee war na la aljana lii nag dama wax ni yoonu kenn nekku ci ba ñuy dingat yàlla mën na ko Sëñ Tuubaa am na ko Rasulullaay seede la ci yoonu kenn nekku ci borom Tuubaa ko wax foor bi tool واغفر لكل محسن ومحسنا وهب لهم منك رضا واغفر لكل محسن واغفر لكل محسن ومحسنا وهب لهم أوزن المزيد حسنا على ثم أسيروا ما بيقدر أسير مع الأبرار على jàngal ma ñëw jàngal ma ñëw سبيل ذي كل يقي ويمين مع الآل والأصحاب أخت الكتاب بسبب عني كل من سيجور gis naa ko dellul ma ñëw gis naa ko سبيل basir sawil islami bihi haaji laa mu gën a gaaw yàlla maa ngi lay ñaan nga bégal képp koo xam ni dangaa nekk ci biir lislaam te yor cib def ma man mii man may sa mbékk njàqare ju waay mën am yitte ju waay mën am boo tàbbee Tuubaa mbaa nga tudd ma fajal aajoy kooka borom bi ñaan naa la yàlla ne ko may naa la looy ñaan naa nekk man xaadim rasulullah leeru lisan islaam xiiwali suñu borom gi ak jàmmam ji nga xam ne fu mu ko xëpp mu doy sëkk bàyyi ko ci yàlla ba faw ala xayri ma yàlla na ko def ci ki nga xam ni moom ku njàmbat ci aw yàlla defal la li nga bëgg. yàlla na nekk ci ki nga xam ni moo gën ci mboolem bindee fi yàlla yi faw mu tamuy Muhammad safihi la si kulli yaqi wa uniru barakallahu boole geeg jàmm ñu dajewaat fi yàlla yàlla dafa leen jàmm dafa leen tawféex dafa leen sotaak jibal barke xaadim rasul alayhi salaatu wasalaam